dans la magie de eSport TV et de Baba Show l'actualité en continue gars actualité ñu fas yéene waxtaanee mi wax nak ci 3-5-2 bi critique yi ak également effectif am wax aussi ci nga xam donc kii di Vinicius Junior ak jooyam yi mais aussi Sénégal mi bat record lépp ñu fas yéene ko wasaare di invité également gars yi dem ci Baba Show ah foofu ngeen di jotee lépp lu jëm ci Sadio Mané actuellement ci top bi mu nekk Sénégal également baat ben record bu 8 ans ah mais aussi li nga xam ne nag mooy donc aussi Vinicius Junior lan moo nekk problème ba tax muy jooy loolu yëpp si Baba Show lay nekk en attendant nag ñu wéyal xibaar yi di wax encore une fois, mbokki sénégalais yi nekk ci diaspora bi ruq-ruqaar ñi nekk ci kaso yëpp nga xam ne tey euh, ñoom yëpp li moo taxoon ñu doon xeex muy Sénégal am beneen xarkaram am njit gu bees ci li ñu nekkoon nootal gi ñu nekkoon ñu daal dafay jógee ñu ngi leen di wax également ah, félicitations à yéen parce que ba muy métti yéen la parce que li ñu wax rek toog muy neex yomb na loolu di tëdd muy dox rek yomb na mais am na ñoo xam dañoo galéré am na ñu gaañu ci li nga xam mooy donc ci euh, géej gi am ñoo xam dañoo faat seen bakkan duñu leen mës a fàtte et que foofu tey la ñuy xaaree njiit yi nii mais aussi hommage à ce monsieur hommage à ce monsieur parce que tey Sénégal dafa am loo xam ne nañ ko sante suñu borom muy lan am na ñoo xam ne jaar nañ fi ah ñoom ah, ñoom gis nañ fi ñoom Cheikh Anta Diop ñëpp jaar nañ fi mais Sénégal dañu wax day suul ndaanaan mais tey say Sénégal feeñal na ndaanaan Ousmane Sonko am na lu bëri lu mu liggéey ci Sénégal tey mu faloog ñàkk falu dafa mel ne tey ah, voilà moom moo falu parce que Sénégal moo ñu ñor ñun ñëpp et je pense que ne tey loolu la ñuy def mais aussi du ñu fàtte li nga xam ne moo fi jógee et ñun sénégalais li ñuy ñaan mooy jàmm am mais aussi justice am sénégalu justice sénégalu yoon képp koo xam ne rek tey def nga leen mu leer ñi sàcc xaalis Sénégal ñu indi ko ñi war a dem tamit ca jeel ba fanaan yi fa comme gars yi ñu ko fanaan ñu daal di koy def aujourd'hui nee naa ñun li ñu wax rek mooy que ne du ñu ay par du ñu ay politiciens. bokkuñ ci benn parti politique Sénégal mooy suñu parti ñu bëri tey nga gisee ñuy xeex pour leen nga yaakaar ne ñoo dañoo bokk amuñu sax carte membre Pastef wala feneen ak feneen mais dañoo gëm Sénégal patriote mooy gëm Sénégal du leneen li nga xam ne également aussi mooy Hall of Fame yi gars yi nag ah, donc Premier League seen Hall of Fame ñi yëpp dugal nañ leen ci Hall of donc Hall of Fame yi bokk ci Sol Campbell Michael Carrick ah Jermain Andrei euh, Cole, Andrew Cole, c'est Ciex Fabregas, euh, euh, Ferdinand, Eden Hazard, Robbie Fowler am na ñu bëri ñoo génération bi xamuñu leen ah ki également aussi Momoy mooy donc le joueur portugais du côté du Paris Saint-Germain moom nag actuellement dal Al Nassr mon moko tek pour dal recruter Al Nassr bu ñom Sadio Mané mo dal di nek ci euh, mom jëm aussi ci kan moy Mohamed Salah actuellement mën nañ c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool 232 euh, buts le double, 100, une passe décisive qui 380 matchs donc qui dit euh, Mohamed Salah dis il a été performant donc mon à 333 reprises qui nga donc euh, am qui <laughs> gars yi hein, l'ancien entraîneur de Marseille finalement mon mon entraîneur du mois du côté donc du championnat espagnol donc euh, Mouda di euh, avec son équipe Villarreal qui nga donc actuellement ñaari joueurs yi nii nag ni di Manchester City dañuy Ligue pour dar prolonger notamment à ah, Kylian Alan Alvarez en tout cas Alvarez mon ñu ko pour man ay ñoom Mbappé yëpp Alvarez la mën bu amee temps parce que boobu il est excellent mais comme rek ñoo xam mënuñoo na ci li nga xam mooy donc euh, am wax na ci également ci li nga koy tuumaal euh, wàllum racine beeg yëpp bëri wax na ko di nga ko fekk ci Baba Show léegi nii Aliou Cissé nag ñëw na si si 3-5-2 mi ah <laughs> na 3-5-2 <laughs> bi ah euh, joueur mi daal comprendre nañ ko loolu ko ci yitteel nee aussi li nga xam ne mooy donc amul benn système boo xam ne baax na nga à 100 pour pour cent mais moom joueurs yi xam nañ fi mu bëgg a dem ak seen ak système bi et loolu moo ëpp euh, solo ci loolu nekk di euh, dox jamono ji mais aussi Aliou Cissé nee na équipe euh, bi nga xam ne moom lañ gis si ñaari match yi nii war war leen a gis nee na bokkul ak équipe yi ñu gis parce que bi day xool yenn joueurs yi pour juin mën a def beneen équipe loolu daal la wax Cissé bi nga xam nag moom nee na waxuñ nag ndax match bi di ñëw dina changer système ou pas mais daal lépp lu muy liggéey rek joueur yi mën nañ ci war a mën a wane seen bopp loolu daal la daal di fësal donc Aliou Cissé daal gars yi mangoo ko hein. donc moom nag ne daal 3 5 2 bi daal système la boo xam ne voilà moom daal gëm na système bi mais teewul nag nee na day xool dina xoolaat beneen système peut-être wala ou peut-être pas mais lépp sol nee na joueurs yi nga xam ne moom la yor ay joueurs professionnels lañ adapté wu nañ ci système bu nekk ñoom nag comprendre nañ fi mu bëgg a jëm loolu daal la Cissé wax yéen man xalaat ngeen ci am déen wax ngeen wéy di like di wéy di abonné on avance ensemble dans la magie des sportive et de Baba Show on se retrouve tout de suite tout de suite tout de suite léegi léegi léegi sur sportive sur Baba Show plutôt su baaxitee second GIF.